Pero kode eksina Digan gu bari na tange Mo weru mbekte Weru yermane mogan weri Koro jamak tau fer la len Alhamdulillah man mangi ngi santat bi ñu yalla maye nyu dundu wat waat Santane yalla suñu ngeenel Elen ko def lolo nyu war Assalamu alaikum alaikum السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا la korité boobu ba léegi sama ñaw yi egseegul fii ak Dakar rek ah naa xaar xëy na fii ba guddi dina egsi xam naa ne sama korité bii janti dara heure bi waroon naa fekk mu dugal ko ci oto teg ko ci oto bu yàgg. te mënu ma koo woo. waxtu rek moo ma def kaama. waa Kiné damaa jox waa janti dara xam nga chaque euh, bu korité di jub si moo may ñawal li may yendoo ak li may sol ci ngoon gi. waaw boobu ba léegi mu ne ma teg naa ko ci oto bi teg naa moom bu ko tegoon ci oto bi sax jox ma numéro oto bi ma woo oto bi. soo korité du xew pour ay sañse yooyu yéeg waa. ah waaye bu boo xëyee war ngaa mën a def sa voile bu oyof daa di daagu. préparer say affaire ak ci kër gi ak yooyu. waaw loolu soo ko defee sa jëkkër da laa war a gërëm tey sa jëkkër sëyuloo ko lu mu la gërëmee soo la. moom sëyal na ma li ma ko war a gërëmee. Ah, waaw moom sëyal na ma ko. Ah, moom deful cëru cëru jëkkër man mii tamit defu du ma ko def. cëru jabar du ma ko def ci moom. Ah, du ma ko def. yow de yaa aw ma mi yéen a yem mën ngeen a tas kër waaye xale bii ragal naa ko de. préfet woo na ma. <laughs> alhamdulilah. te xam naa ne na mu waxee. mooy gane na. <laughs> yaa ngi man nag dafa am nu may ànd ak ay nit. waaw man damay gore ba ba may sangoo. wallaahi dëgg la dëgg la kenn ku ci nekk ci yéen poste laa la digoon. waaw porte parole waaw waaw porte parole. ku ci ne poste ba ma la waxoon. waaw ko jël. ma ma ma ma bu fat sama bool foog ja silibi. loolu silibi man moom. waaw wax dëgg yàlla amuma dara ma lay waxal. lu wax sant yàlla rek. li ñu bëggoon mooy def combat yi. waaw boo gagné victoire yi. yàlla def na ñi nga gagné victoire ndax yaa ma sama kër. dafa daka ma maay ñëw fii nga tenir ma ma naka fii nii <laughs> wax dëgg fa yalla mooy man nekkee sa kër ba léegi amu problème man kay lu mu bëgg a jël sargement bii rek ah. mooy nga teg ma si section yéegal drapeau rek <laughs> moo tax nag tax ma <laughs> waaw comme ñoo ko doon nasandoo di ko nocceendoo ah, ba yàlla dogoon na lañ doon nas nasu na duñ ko nasal dañ koy bàyyi mu glissé waaw aw ba war naa yor lomotifu tonton Tafa mi suturaalu ko jël ko wili paande ko ci dëkk bi hmm. ba yow ndombal tànk dañ ko waroon takkal ñu jël ko sànni ko ca xaj ndax moom te duus de defu ko dara nag xoola tegu ko defu ko dara ñun liñ ci toog sax ak liñ ci dox yëpp moom fekk ko ci te mbaax ma récupéré na 2 million naan association xaw ma bokk xaw ma lan ak lan ak lan du dëgg yóbbu na ko dëkk ba kon 2 millions yi euh, kiyam yi lekkuñu ci lan ay a ci lekk ki béy jënd na lépp liy ngooñ liy repasse yóbbu dëkk ba jox leen ko xale bii. xale bii ak a tiit. Hmm. te am fit. man xale bi ragal naa ko de. soo ko taayee yére yu bëri yi mu daaj yëpp. ah yow gisoo ko ni mu bellee gisoo ni mu bellee. aw léegi soo toggee ndog mun la non non dama suur damay xaar ba ci kanam bool bi ma ko tibbal foofu laa koy fekkaat du ko lekk kon maanaam léegi rek lay lekke ak ay xarit yu bees xaritam bu xees boobu ñoom ñaar ñoo fi nekk di lëmbe mooy kooku muy àndal rek ñoo fi nekk di lëmbe. Hmm. awa ba moom moom moom moom moom awa ba ñëw awa du suñu mbokk du sa mbokk du mbokk ño moom mbokk dofi la mbokk dofi ñoo war a ànd génn kër gi drapeau bi yéen fan ngeen def seen choix ne fa laa ko war a takk boo def choix yow jàng boo def choix boo def choix sama la drapeau xam nga ne ak liñ ci sonn yëpp sa biir néeg nga koy takk waxi dof la loolu waxi dof la. yow dangaa ko xoolal ah. ah. xam nga fa laa bugg ngay hmm. takka ko. si kaw mango bi si kaw. mu jëkkaarloo ak ak ak kër ñoom. tafa ah. loolu laay bugg ma. déedéet loolu mënul ne kenn du def loolu. drapeau bi dañ koy takk ci kaw terrasse bi. Hmm. bu ko defee waa quartier bi yëpp fu ay tollu seen ko ñu xam ne yow yaay chef de quartier. waaw loolu la parce que drapeau bëgg naa benn loo takkee drapeau bi suuf. waaw takkaate benn drapeau caka drapeau Amérique. pour la xam ne ñu tam ay américain lañ. en fato. waaye yow nekkuloo ko da ngaa ko waay. chef de quartier ñuy dakk drapeau pour ñu fële ñu xam ne lépp xam nga xam nga man nag lan laa gisoo. Ah. comme yàlla dogal na ma nekk chef de quartier. man may xëy di ah, woo. maaleykum salaam mooy sama ndey. man xale bi sax ma dama koo wërwut ak samay dëkk ndax chaque jour mu naan dërëm dangaa ñaaw dangaa ñaaw te ni mu koy toppee naan chaque jour dangaa ñaaw xelam ma nga ca. Ah, waaw baax na. so léegi ni makoy fem femm kaama la xalé yi góor gu ñaaw la ñuy wër ndax nee nañu góor bu rafété ciofé kenn du am ci mom dara xam nga ñu ñaaw ñi ñoo mëna joxé xaal bi ah bi de bokku ci ndax gisuma lu taaru ci mom ba tax ma wër ma wër ko mëna top, man bu may top damay top ko présentable mais yeen ni ngeen di woré tok ci der di jëw yaap sama fenêtre ne ni ngeen tok di ma yàq waaye nag mën na né ay oudé ngeen bu ngeen dagul téré dag dal yow awma lu may wax ak yow ndax dèjà boobu ba léegi xam nga ne kooru daaw ak kooru ren bokkul yaa ngi mel ni ku ñu summi ndax lekkoo naanoo. maase woo boaw moo tax ngay xullee man ngay waxal aw ma lu may waxal man ngay waxal man yow nag moom <laughs> dangaa sa jëkkër ji doyoo ko dara ak sa xefi jaal yi nga xam ne oto xaj na ci. yaay daanaan yaay daanaan koo mérité da koo mérité yaa ko fi liggéey yaa ko fi xaar ah waaw waaw yaa ko fi ah da ko fee xaar da ko fee xaar. Euh. naata yu ñu ko ko ñu ni jox na daagu la daagu na boobu ju ak sa ci juróom daa ko ko def fu boobu ju bokk ju tàq la ak juróom daagu la daagu na daagu doone bagaan diggante Kajoor la Bawol ak Siin ak Saalum kuuf ko fees yow looy wax looyu lakk ni yow ku fi doo xam na la ku fi dund foo xam na la yaa ko xaar indi indi jot waaw waaw jërëjëf jërëjëf a kontaan. xam nga nga biro xojate. doy kilifa moo yónni. kilifa moo yónni préfet moo ñu yónni. merci. Ah. wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu bu baax. kii c'est bon pardon di doxul. doxul ah, doxul. ah batterie bi jeex. li nga bëgg a dundeek man ci biir kër gi ci boppam laa la dul mayati. xam nga la laa lay bëgg a xamal. wax ji ak yàq der bi dafay dakk depuis léegi li ngeen di toog nii di ko wax yéen a koy wax nag mais seen i jëkkër duñ ko wax xale bi am na fit d'accord d'accord awa xam nga cu ku juddoo ci dër màggee ci dër loo am ko mbaj pajaas ndax doo doylu da tiit mm-hmm. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man soo xasee sama jëkkër ji du metti ndax awa yow yoroo lu présentable te doo wax merci bon appétit yow xale ci yow la ñuy jàngee yéeg man loolu mettiwu ma mm-hmm. yaay deg mhm. donc li ñuy wax làkk làkk luñ ko nëbbatuwuñ ko kon duñ tok fi ci digg eut bi ah, di ko fi waxee nag sa fenêtre nga ni bu ngeen ko lak lak lu won fatki ne da ngeen may woo ma genn wo boko ci motax waxuma ak yaw ma wax ak yaw ma wax ak yaw ba mu neex baat waxuma ak yaw wuy ma ma wax ak yaw ba mu neex d'accord li nga wax lepp mën na ka nangu waye yow tubaarikàlla dangaa bàyyi ma doog a jël ndax yow ba nga baye ba am jëkkër ni nga def ba am jëkkër buma ko defé am jëkkër eh, waye jombu nako ko Fatou lenn laa lay bëgg a xamal maa la mën eh? maa la ëpp doole eh. maa la gën a réew maa la gën a sañ eh eh, eh man maa la ëpp doole lii waxtaanu nit ñi la yoonu animaux nekku ci bu benn animaux ah. wax maa la gën a sañ lan la ci waaye boo xam ne damay tuur meew dese dax man réew ma rek yam ci man damaa xotteeku damaa nëb garabu yoo ci man lañ ko inspiré parce que damaa dëgg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 dee waay. préfet nag préfet nag nee na. mi bu baax sa nekkin ci koñ bi. gis na bu baax social bi ngay def. gis na bu baax ni ngay accompagner jeunes yi ak xale yu jigéen di leen jàppale. wallaay rafetlu na tamit. moom dëgg yàlla fonk bi nga fonk quartier bi. wallaay. ba tax na mu bind benn leetre bi jox ma ko. ndeysaan. ku kay nangu maa kay nangu. ku kay nangu ñoo kay nangu. liiral ko liiral rek liiral ñu ko lii ko. lii ko ci yooyu bàyyi rek mu lii ko. bàyyi rek lii ko ko nee na day waayante day mel moo jàng. waaw xam nga bàyyi. tey de gënu laa jàng ko lépp mais bàyyi mu lii ko. waaw aywa ñu déglu ndax leen ndax am leen discipline. barke mi ngi lay nuyu di la sant di la ziar di rafetlu bu baax. nekk bi nga nekk ci koñ bi comme li ma ko wax léegi sax. merci dana leer bi mu lay bind. mi ngi lay xamal ni wax deug yalla amon na yene lol lol lol lol lepp lo dugg mu fekk ci la ci waaye soti ak xam nga lan leen di bëgg xamal te wax ji day jeex tay jeex aw jeexut xolal bu jeexul yow la yow fu ma merde ah ndax yàlla man yow am na ngeen di ah, eh, man may wax ak yow may man man waxuma ak animal wa mala bey wax ak yow mala bey wax ak nit ki yow da nga rew <laughs> parce que yow bu nu ñàkkee carte bi yow yañu ko tek nga ca presse la joggé nak lama ko wax dégg nako vidéo yi nga té dem jox ko préfet bañu ñak carte bi. yow da ngaa réew. yow da ngaa yow yow yow yow da ngaa soxor. yow da ngaa soxor yow yaay kan ba kenn du wax ak yow. ah nga ne dëj ci kaw nit ñi ni mel ne. yow doy na. wóo nga topp mag sa gémmiñ gi nga mel ni ko xam nga lan laa lay bëgg a xamal. Ah, nga génn ci man ah, ah def leen ndànk ah, nag def leen ndànk nag. def leen ndànk nag mën naa nangu ne man man. mën naa nangu lu leen neex yéen wax leen ah. mais dafa am lu ndaw rek loo xam ne dama ko war a mën a leeral te faaw ma leeral ko may ma rek am na loo non fàttali ne fàttali ne bu lépp jàllee nag sama xarit nga te xam naa ne li ma lay waaje wan nii di nga ci piqué crise mi ngi wax ni hmm. gis na bu baax li nga def ci koñ bi. Ah, wax nañ ko tamit ni ngay jàppale. billaay moo ma fat ba ca doo minute la ma fat. ñëpp moo leen jox ndogu kay bi ba. koñ bi yëpp moo leen jox ndogu. ah fi nga xamante ni pala préfet di daanelee mooy. ah. nee na lenn rek la xañ quartier bi. Ah. lenn rek moo la bi mooy gis na ni mag nga waaye amoo yar amoo teggin foo waxee benn baat rek saaka nga ci toftal te quartier bi. mag mu amul yar ak teggin du ko yore ndax xale yi dañu roy ci moom allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira ah. wa subhanallahi mukratan wa asila fii vidéo yi ñëpp gis nañ ko waaw d'accord ah. euh, dërëm maa ngi jéggalu mag yow amuñu benn problème ah, xam nga mag yow amuñu benn problème léegi nag man maa leen tooñ damay jéggalu mais Fatou Kiné bu lépp jàll xoola rek xoola rek loolu moom fen nga ko fépp dëgg la waaw dëgg la waaw man maay fenkat bi moo tax kaa yëpp war a génn kaa yëpp ay génn bu mag comme weeru koor gi moom dañoo tënkoon seytaane nga ne yow doo bàyyi loolu léegi nag <laughs> waaw mi ngi nii nii la kaa bi tëddee xanaa ku nekk xàmmee na pointure am te ku ne xam na bu jëkkëram du dëgg vidéo Moustapha bi moom la ya, ya, tasaare maa tay waaw yaa yaa tay kay maa tay waaw parce que kan nga di jeune menteur ubbeekul rek ha sa yi diis massa massa massa soo da jaay ñëwit ah waaw lu xew lan <laughs> la laaj ko kii lu xew Hmm. motus si laabi bi duul boobu moo la xañ affaire yi moo ko yónni duul yooyu ngay wax moo la xañ loo am dangaa ñàkk a kers boo mel ni seta la yow ne kaaw waroo wax loolu ndax yow sama nijaay façon bu nekk taxawu na la ko waaw sa nijaay sa nijaay bu fekkee taxaw na ma te mu wax naa ko bayil saaga saaga moo ñu war a xañ bu fekkente ni loolu dafa nekk ci doomam moo ko xañ loolu boo ko xañ moo ko xañ chef de la quartier bi waay yow waxante dëgg waay kata sama woon ñoppal sama woon rek amul daa amul daa te yow dañuy kat saxoo ba nga man vidéo bi gis nga ko mais bi beneen la ñaar la beneen vidéo am la dërëm de yaa ngi mel ni quatre heures du matin eh bul supprimer al ma sama téléphone supprimer yow nit nga ngay zoom yaa gën a xam ne yow la sa dagg bu ñaaw sa form bu ñaaw di mel ni luñ dóor ku wa deureum gaajo ndekete deureum du sa kanam gi rek ka ñaaw li mom du yow kesse li mom du yow bonne journée bonne journée à vous bonne journée benen yone ngeen togaat sama tata parentero kenn ku ci nek nak mën nga xaar sa wal deug deug hein ñew ñew ñew ñew ni ñew ni ñew ni sukkal fi sukkal sukkal yow. ñàkk jom. saxaar ñoom moo moom mooy ak liñ denc toolam. ñu ñu saxoon ne ñu nii ñibbee. liñ waaw waaw ak liñ def ak liñ fi wax lépp fu teen am bi. xanaa dem. kat xaram dugg si teen bi dama dama nga def sa xol yaa xaaju ci biir teen bi ma xam xamal ko dama dama bu ko ci boo ko dee rek bàyyi jàmbur parce que dama man ba président de la république damay kat xaram sa sa waaw da nga dugg ma taxit ma sa waaw sama sa ma kat xaram waaw waaw ñama sa xol fële su ma neexee maa ne maa bëgg xoolam ya tax sa affaire bu ko bañ ka tax ba xaar ba xaar yow gàcce du la rey sax sa bopp bu yaraax bi ne moustiquaire. moo oh, boppam bu ndoxam siti bii nga naan yaraax. si gémmiñ gu yaatu gi ne xaj bu sax ku gu tàng. cum mbete bato. sa baqan bu gudd bii ne tunnel. Hmm. ay dërëm lan la. dërëm lan moo dal lan moo la jigati moom rabam yi koor lay bañ. kooru daaw gis nga lim fa def mu ñëwati bi a gën a piir ndax vidéo bi xamoo fu mu yem. noonu yi bëggati nañ. aw ba mi nga xam ne chaque jour ma takk sama sët jàkkaarloo moom ndax yow aw ba su ma yebee rek yow la askan wi suñ ma yebee rek yow la. dërëm lan moo dal ngay riisu sa bopp ni di riisu sa bopp ba yow fu ma la fekk yaa ngi betadine sa saak fu ma la fekk yaa ngi betadine sa saak ndekete riisu yi ngay riisu nit ñi moom nga munta muñ moo tax lépp xollee ko nga ciy def betadine. ah nga yóbbu ko faji ko dafa feebar lii lii lii lii lii lii feebar la de. mbaa xam nga ne balaa ngaa jëlati pat di ko borosoo zircon bi laa jël borosé ko sa bëñ yi. ah na nga koy rey. xolal pétrole laa jël léegi di la ko sangee ndax ngay set. laay bu ko almet jege bu ko almet jege. yow yaa tëral saar rek. bàyyi ko bàyyi ko. kii dóor mënul ci moom dara seet ma déedéet déedéet may ma may ma may ma déedéet déedéet déedéet àddina da ngay mbab déedéet wuy ma eh, ay waay waa kër gi ñëw leen yéen ay baye baadoo non yow xam may ne naka jekk ba mën a xool seen kanam yi xam ne ay mo ñal ak ba ba def jël dof na ne yéen dañu ne kay yow waa bu yeboo lan laay demee kër tafa lan laay ñibbee kër tafa yéen defoo leen dara de lépp sama nijaay la ah moom mi jël ay dof dajale ne yaay ñappal sama xol bu fi nekk di xeer moo tax nga ñàkk

Kia lên, kia lên, kia lên, kia lên, kia lên, Giết đồ đấu, đồ đấu, đồ đấu, đồ đồ đấu. Xem mẹ mẹ xem mẹ, mẹ mắn, xem. fii vidéo yi ñëpp a ko gis. gis naa lii vidéo Moustapha fii ñëpp a ko gis. waaw waaw déedéet bokkul nag bokkul nag yërul. jarul wax jarul wax fii vidéo Moussa Fall ñëpp a ko gis. yow yow yaa ñàkk jom ay waay kinne da ngaa soxanti dërëm nag kinne ba ci Serigne Touba su waay kata sama on ñoppal sama Ama la ta yu mu ne dug sa ba halal. Ici Aja aja aja aja. Foofu neexoon aja aja. C'est bon? C'est bon, on le fait hein. C'est 네.